mu ngi fi moom dañ koy jox leen ngay rek pour ñu mën a xam le cadre juridique bi nga xamante ne moom la ñuy wax ci euh, garde à vue professeur kon professeur lan mooy garde à vue waaw li ñu wax garde à euh, mooy euh, ñu téye nit ci police walla gendarmerie téye bi nag dafa am diir li ci ëpp ci mbirum enquête lay jëm léegi bu sañ nañ téye nit police wala gendarmerie ci mbirum enquête ki nga xam ni moo war a dogal loolu mooy ki ñu wax officier de police judiciaire officier de police judiciaire mën na doon commissaire de police bi wala adjoint wala boog commandant de brigade bi wala adjoint maanaam ñi gën a sut grade ci policier yi ak gendarme yi mmh. mmh. ñoom la ñu wax officier de police judiciaire mmh. léegi ñooñu ñoo am sañ dogal pour Euh, téye nit diir ci police wala gendarmerie agent de police euh, sañu ko gendarme ci boppam sañu ko gannaaw loolu it li ñu wax garde à vue dafa am diir donc garde à vue daal bon ci tënk mooy téye bi ñu lay téye police wala gendarmerie waaw nga xam ni dañ lay téye ci lu dul sa coobare maanaam doo mën a dellu sa kër fekk bàyyiwuñ la mhm. léegi nag euh, garde à vue boobu dafa am diir maanaam àpp boo xam ni euh, police wala gendarmerie sañ nañ la téye mm-hmm. waaye àpp boobu doonul àpp bu taxaw benn bërëb maanaam euh, ça dépend des circonstances léegi li ci ëpp mm-hmm. bu ñu téye nit ci ñaari fan lay toll maanaam quarante-huit mm-hmm. waaye quarante-huit yooyu bu fekkee ni am na Euh, su enqueteur bi jàppee ni loolu doyul sañ na ñaan procureur de la république pour mu dolli yeneen ñaari fan kooku mooy li ñuy wax ci niñ koy jàngalee en période calme maanaam su fekkee ni dara xewul nit ki mën nañ ko téye gën gaa bari ñeenti fan ci police walla gendarmerie léegi nag am na jamono yoo xam ni maanaam ñeenti fan yooyu dañ koy gën a yokk maanaam am na jamono yoo xam ni li ñu wax état d'urgence mhm. état de siège mhm. ak application de l'article cinquante deux de la constitution sénégalaise mhm. ak li ñu wax atteinte à la sûreté de l'état yooyu bu ci am léegi fañ daan téye nit gën gaa bari ñeenti fan dañu koy doubler maanaam nit ki danañ ko téye lu mat juróom-ñetti fan juróom-ñetti fan. juróom-ñetti fan. Mhm. mooy état de siège état d'urgence. Mhm. atteinte à la sûreté de l'état mhm. ak utilisation de l'article cinquante deux de la constitution. article cinquante deux de la constitution. mooy wax lan waaw. mooy euh, sañ-sañ yoo xam ni constitution bi daf ko jox président de la république. li ci ëpp nag booba day fekk ay yëngu-yëngu am ci réew mi. mu àkki moo daanaka euh, dogal yëpp. léegi. Euh, kon waxtu yooyu dana euh, maanaam li ñuy wax garde à vue dana mat juróom-ñetti fan. ok naa dem ba juróom-ñetti fan. Euh, waaye am na garde à vue bu gën a guddati. ah oui kon mën na weesu juróom-ñetti fan. mën na weesu juróom-ñetti fan. Mhm. mën nañ la téye lu mat fukki fan ak ñaar. douze jours douze jours. Mhm. ci li ñu wax terrorisme. infraction terroriste. article 677 1 tiret 28 du code de procédure pénale. Mhm. donc euh, garde à vue bi gën gudd Sénégal fukki fan ak ñaar la ci affaire u euh, maanaam terrorisme ci la aju léegi loolu mooy diir bi nga xam ni garde à vue nit ki war a def foofu waaw garde à vue moom la mën a demee mhm. léegi léegi balaa nga yeggale professeur bëggoon naa xam euh, xam nga Sénégal li ñu baaxoo miin mooy police ñoo lay jàpp placé la garde à vue mhm. wala gendarmerie mais bu weesoo ñaari corps yi est-ce que am na yeneen corps yoo xam ne ñoom yoon may na leen pouvoir ñu mën a arrêté nit placé ko en garde à vue dressé procès verbal pour préparer defeere la jébbal ci ci ci wàllub yoon bu weesoo police ak gendarmerie est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne am nañ taxawaay boobu mën nañ koo def kooku dana jafe ma tontu ci waaye daal jàpp naa ni mhm. xëy na lu mel ni douane mhm. war nañ mën am boobu maanaam sañ-sañ waaye nag wóoruma puisque nit ku nekk day wax la mu xam mais ci li may jàngale daal. police ak gendarmerie ñoo am boobu sañ-sañ. donc est-ce à que kon euh, li ñuy woowee retour de parquet c'est illégal. Mhm. retour de parquet leneen la déjà d'abord lan mooy retour de parquet. retour de parquet. Mhm. moo di maanaam délai bi ñu joxe ci garde à vue jeex na léegi euh, bu garde à vue bi jeexee. enquête dossier enquête bi yëpp dañ koy jébbal procureur de la république mhm. procureur mooy seet nu muy doxaleeg dossier boobu léegi nag mën nañ ko jébbal dossier bi waaye amul jot day ñaan kilifa ba ca police wala gendarmerie pour mu téyal ko waa ji ñu tegoon garde à vue mhm. waaye kooku il faut l'avouer c'est une décision illégale maanaam amul benn cëslaay mhm. ci yoon lu dul rek maanaam procureur de la république mooy kilifa policiers yi ak gendarme yi ci mbirum enquête. Mhm. bu leen nee téyel leen ma diw ci police wala gendarmerie ñooñu danañ am kersa gàntu ko. mën naa ni daal loolu mën nañ ko tuddee un acte de courtoisie administrative mhm. waaye sur le plan légal amul benn fondement mhm. yoon ndax yow danga war a jàpp ni dañ ko fi war a jëlee wala dañ ko war a légaliser benn yoon wutal ko cadre juridique bu koy bu koy maanaam euh, ca jamono maître Sidiki Kaba waxoon na ni dañ koy légaliser waaye ba léegi amagul légalisation donc c'est tout à fait illégal c'est un acte de courtoisie administrative retour de parquet une pratique normalisée au Sénégal pas Moussa waaw euh, une pratique normalisée mais euh, comme euh, ni mu ko expliqué parfois nit ki day des maintenant léegi commissariat te dépassé na délai yi mm-hmm. li li li li doy waar euh, surtout euh, boo demee pour seeti nit ki moom mooy gën a doon problème parce que boobu OPC yi ñoom ñoo ko téye woon xëy na sax dinañ mën a permettre l' accès mais euh, moment de retour de parquet la plupart boo demee di seet nit ki dañ naan la nekkatul suñuy euh, responsabilité mënatoo koo gis voilà pour nga gisi ko procureur moom moo ñu ko dénk mais nekkatul dans les règles de la garde à vue mm-hmm. finalement euh, est-ce que parce que dañ naan bénéficie de retour de parquet mais est-ce que bénéfice la finalement. est-ce que ce n'est pas une entorse aussi au libertés individuelles kon ki bu nekkee ci euh, euh, de parquet maanaam. lu ko fa mënti dal takk der yi nga xamante ne ñoo ko tegoon loxo ba def ak moom enquête ba dressé prévoi ba teg placé woon ko garde à vue ñooñu seen responsabilité du engagé loolu lañ lay wax dañ naan la ñun suñuy responsabilité jeex na moment bi mu jee garde à vue mhm. moo ñu ko dénk d'accord bon doo xam euh, lan ci euh, lan nga ci mën a teg parce que ñoom ci seen bopp it aussi mhm. da ngay xam ne seen responsabilité jeex na biñ ne mhm. garde bi euh, délai bi jeex na délai bi jeex na waaw waaw kan mooy décider wu fin wu garde à vue kan mooy jël décision bi kan mooy annuler procédure bi. bon yooyu yëpp dinañ ci ñëw. Mhm. Euh, li ma ciy dolli moo di. waaw léegi euh, xam nga wax naa maanaam àpp bi nga xam ni. garde à mhm. Mhm. war na ko am. léegi nag euh, benn laaj bi moo di kan lañ man teg garde à maanaam kan lañ sañ def garde à vue. ñu sañ def garde à mooy li tubaab di wax le suspect maanaam koo xam ni dañ ko jiiñ ni def na jéeya. mën naa am moom la mën naa am du moom ku ñu tuumaal daal. ok muy mhm. benn. Mhm. ñaareel bi le témoin. maanaam koo xam ni am na lu mu yëg ci jéyee jooju ñu def ñu bëgg déglu xalaatam ba xam mbir yi na mu demee. Mhm. mën nañ tey ci garde à vue euh, nit koo xam ni dañ bëgg xam. mooy kan maanaam li tubaab di wax vérification d'identité. d'identité yooyu ñetti nit. sañ nañ leen téye garde à vue. garde à vue mais ku ñu téye garde à vue ndax forcément rek dañ la war a déférer wala mën nañ la téye garde à vue ba pare après lever mesure de garde à vue bi libérer absolument maanaam mën nañ la téye garde à vue. parce que garde à vue ci biir enquête lay am. Mhm. Mhm. bu fekkee ni euh, maanaam polisier bi wala gendarme bi. Mhm. def na enquête am ba xam ne amul dara lum looy mën a jàppe. daf lay bàyyi. d'accord hmm. ok am na benn contribution bu may jot sax euh, une contribution anonyme buy wax ni l'équivalent de la garde à vue en douane et la retenue douanière kooku benn contribution la boo xam ne c'est bon à savoir ñu ñu ñu jàllale ko d'autres question waaw concernant la garde à vue balaa ñu ñëw ci droit yi ñi nga xamante ne ay témoins lañ wala vérification d'identité ñooñu am nañ délai bu ñu leen tënk euh, euh, maanaam loi bi préciser wu ko puisque hmm. loi bi dafa wax mën nañ la téye vingt quatre heures nee na it mën nañ la téye quarante huit kon euh, maanaam seetantalul waaye ki ñuy déglu te fekk moom deful dara waaye am na lu mu xam ci yoon vingt quatre heures lañ ko war a téye moo mooy li ñu wax le témoin ok euh, euh, maanaam ki ñu vérifier di identité am aussi xam mooy kan bu ñu ko vérifier war nañ ko bàyyi mu dem mhm. bu dee suspect bi nag maanaam ki ñu tuumaal jàpp ni def na walla deful kooku yeneen délai yi mooy dal ci kawam mhm. maanaam bu dee temps normal 48 heures yi mën nañ ci dolli yeneen 48 heures moom la ñuy wax prolongation de la garde à vue gën gaa bari mu toog police wala gendarmerie ñeenti fan. ñeenti fan. ok. seeti ko wala. absolument maanaam bu fekkee ni garde à vue am na. Hmm. yow mi mbokk waa ji sañ nga dem seeti ko pour xam euh, mbir mi na mu demee. juste hmm. mais parfois mën nañ la ko gàntal ci bu fekkee mbir mi dafa dañu nekk di ko déglook yooyu ci mbirum enquête. ndax daf ci am ay cas xam ne dooy mën di gis ki ñu garde à vue déet maanaam gis bi moo di rek yow comme mbokkam nga mm. sañ nga dem ñaan ni dama ko bëgg a gis mm. euh, gannaaw loolu it danaa ci ñëw mm-hmm. avocat bi mm. euh, may nañ ko droit mu gis kiliyaanam ndax euh, kooku ci yelleefu ki ñu téye ci la bokk mm-hmm. justement ci yelleef boobu pour appuyer ce que vient de dire Fatima mooy yan droit la tey jii nii ki nga xam ne nii dafa nekk ci position garde à vue si si on peut le dire comme ça mm. yan droit la am parce que souvent euh, dañuy gis bëri na fi ñu daan fi invité yooyu dañ naan instant bi ma ko nekkee am na lu ñu ma signaloo am na lu luñ ma lii mm-hmm. euh, ça locasion l'occasion nga expliquer sénégalais mm-hmm. tey jii ku nekk ci position boobu noonu yan mooy sa droit droit waaw buñ la téye garde à vue mm-hmm. enquête lay doon maanaam dañuy gëstu ci biir gëstu boobu nag day am ay laaj yuñ lay laaj laaj yépp yuñ lay laaj da nga ciy tontu mën naa ni sax bu la neexee nga tontu bu la neexee nga bañ tontu waaye lépp luñ la laaj ak tontu ya ngay joxe dañ koy bind moom la ñuy wax procès dañ koy def ci këyit muy procès léegi ci biir procès bi. danañ wax waxtu ya ñu lay euh, laaj ak waxtu ya ngay noppalu gannaaw loolu it euh, ci biir yelleef yi euh, nit ki sañ na laaj li tubaab bi wax examen médical maanaam jàpp ni dafa bëgg ñu seet yaramam fu mu toll mm-hmm. waaye bu fekkee ni ñaan na ko bu loolu amee maanaam xaalis bi mu war a fay mm-hmm. dafa koy teel a génne maanaam da koy consigner ba nga xam ni bu ko médecin bi seetee dañu koy fay maanaam consultation bi waaye procureur bu laajee examen médical bi moom nguur gee koy fay gannaaw loolu maanaam loi bi maye na pour nit ki ni dama soxla avocat ça fait bu soxlaa avocat euh, war nañ ko metre en communication avec avocat bi mu waxtaan ak moom waaye foofu dafa am woroo bu am ci diggante mhm. li ñuy wax code de procédure pénale mhm. ak l'article cinq l'acte cinq du règlement de l'UEMOA mhm. ndax acte cinq boobu dafa ni euh, nit ki bu yegsee ci police wala gendarmerie rek de l'interpellation maanaam bu ñu la wooyee rek waaw bu ñu la wooyee rek dès l'interpellation sañ nga am avocat waaye code de procédure pénale bi moom li mu wax moo di bala ngay am avocat mhm. day fekk ñu téye la garde à vue ñu war làbbali garde à vue bi maanaam prolongation de la garde à vue euh, léegi waroo boobu nag mhm. man ca jamono waxoon naa ko ci yoon mhm. dañu waroon fexe ba li code de procédure pénale bi bind méngoo ak règlement de l'UEMOA bi ndax règlement de l'UEMOA bi charte la boo xam ni ay réew yu bari ñoo ko ŋànk mm-hmm. te bu fekkee ni yow Sénégal signé nga chart charte boobu day féete kaw sa loi bopp mm-hmm. kon bu loi Sénégal bi wax charte bi charte bi mooy féete kaw euh, règlement euh, kii maanaam code de procédure pénale bi mm-hmm. euh, am na ci mbirum Thione Seck affaire u Thione Seck bi maanaam enquête ba amoon ak yooyu dañ ko mujj neenal ndax dañu ni waxuñu ko woon ca jamono ne am na droit avocat dama ciy dolli ni. buñ la nee am nga droit avocat dañ ko war bind ci procès verbal bi du yem rek ci ñu ni la war nga am avocat déedéet dañ koy bind ci procès verbal bi. Mhm. su ci feeñul mën na neenal lépp. lu jëm ci enquête bi. maanaam buñ ko buñ ko respecté wul rek sa teewaayu mm. avocat boobu. bu ñu demee tribunal juge bi du lijjanti ndax diw mi def na wala deful. day ñëw rek annuler procédure bi. ñu libéré nit mu ngoog ci yoon bokk. c'est un facteur d'annulation. léegi. Euh, ah, parce que dans l' affaire Khalifa Sall sax avocat yi ñi ngi doon sou soulever lu mel noonu ci procès ba. gis nga ma dolli ci ni non seulement soulever nañ ko mais euh, CEDEAO ca jamono ba mu euh, saytoo mbirum Khalifa Sall. Mhm. nee na ay yelleefam respecté wuñu ko. maa ngi fàttaliku bi nga xamee ni war nañ dem maanaam cour d' appel lu jiitu loolu invité woon nañ ma. ma ni ci yoon. décision ba ñu jëloon dañ ko war neenal maanaam décision de première instance waaye nag cour d'appel dafa doxale lu waroo li nga xam ni moom la CEDEAO mais ci ci jamono yooyu juge bi li mu tontu woon dafa ne li nga xamante ne moo nekk à la base des poursuites du PV bi nga xamante police def na ko mooy mooy rapport de l'IGE donc ñoom foofu la ñu sukkandiku pour pour bañ a def lu ñu tuddee annulation totale donc dañoo ànd def annulation partielle rek li nga xam ne moom mooy PV yi nga xamante ne peut boolee git en réalité euh, du woon loolu rek maanaam euh, du woon rek affaire euh, maanaam absence de notification avocat mm-hmm. amoon na it le non respect de son immunité parlementaire maanaam doonoon na député doonte mu ngi woon ci kaso bi waaye joxuñ ko woon àq ak yelleef yi nga xam ni député war na ko am maanaam kiiraay boobu ñu koy sànge muy immunité parlementaire kenn respecté wu ko yooyu yëpp euh, cour de justice CEDEAO mhm. daf ko décidé woon waaye nag juge d'appel bi d'accord balaa nga yegale am na benn question internaute Zico moom mu ne euh, day demande différence centre interpellation et arrestation interpellation mooy woo nañ la arrestation mooy jàpp nañ la mhm. waaw loolu de leer il mhm. y a pas plus clair <laughs> parfois da gis sax ci rapport yi nga xam ne gars dañ koy koor yi dañ koy génnee euh, cent trente personnes interpellées xam naa mm. Fatima dina ci ñëw sax ci mm. kii donc mm. interpellation ak donc interpellé tekkiwul na nit ki arrêté nañ ko non non non waaw <laughs> mooy woo nañ la rek mm-hmm. arrestation nag mooy jàpp nañ la teg nañ la loxo teg nañ la loxo mm-hmm. ok droit yi mën nañ yeggale am na beneen wala waaw euh, gannaaw loolu it uh-huh. euh,